ñuy ndam Thank you. Alın dereyi var. He. ñi dee nag ay mbaam ma ngi leen di dóor. buñ dóoree nit ñi dañ leen beneen beneen bi.